dëgg la nag yàlla wax na ci alquran ni jant baa ngoog weer waa ngoog su ngeen bëggee calendrier ñu ngoog waaye am na ñoo xam ni jant beeg weer bi tënku ku leen ndax seen yitte ëpp jant bi moo ëpp weer wi waaw moo nekk لا وردة المديح تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحروب أقول لك bisu لا la أبنكم yéem ëpp mu mel na mag ñi am na ci ñoo xam ni fii ci Sénégal li leen yàlla defal ku ko xam te tënku ca sa jaaxle def waaw yàlla leen ko may